leader yi ko accompagner pour organisation daje bi ñi nekk ci présidium bi di leen sant leen gërëm bu baax madame le premier ministre mon ami et frère Cheikh Bamba Dièye honorable député Mamadou Lamine Diallo ku ñuy teeru fi tey ji organiser lii yëpp muy mon ami mon frère Biagui et le vaillant combattant le grand combattant sanq sëñ Baara mi ngi koy rappeler maître Moussa Diop wante ku leen liim liim nga ñépp ñi nekk ci salle bi su doon sagoo su ma sagoo kenn ku nekk ci yéen dinaa ko tudd ndaxte waxte wax nañ ko fi sànq metti woon na c'était pas aisé wante kenn ku nekk ci yéen am mbooloo ci ginnaawam mu noon yenn saay demal boppam moo jiital intére réew mi décidé ni damay dugg coalition jomay président góor góorgóorlu xeex ba yàlla indi li Sénégal bëggoon mooy Diomaye nekk président la République du Sénégal cent jours am na ku ko wax sànq dafa mel ni cent jours obligatoirement dañu war a wax déjà loolu war nañu góor góorlu ba génn ci cadre yu mel noonu dafay indi erreur yu metti yu regrettable et sans nous en rendre compte dañuy installer suñu population ci logique boo xam ni une logique ancienne li ñuy wax ñëpp di ko wax mooy transformation systémique dafa am ñaari yoon yoonu urgence ak yoonu essentiel mu am benn boroom xam-xam bu daan wax ni à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. te 100 jours di mettre la pression pour ni wax leen wax leen wax leen dafay mel ni dañu bëgg a tënk encore nation sénégalaise ci urgence te fekk essentiel bi mooy la vraie transformation une transformation systémique la question mooy est-ce que ci 100 jours yooyu ñu ngi ci gaar bu baax bi ndaxte sa oto mën na gaaw nga kontaan ni gaaw na lii def naa ko lii def naa ko fekk fim lay yóbbu du woon destination bu baax ba ku ne changement système da ngay jóge xëy na gaar bale nga nekkoon train bi nga nekkoon naroon la yóbbu fu bon nga changé ni damay dox tuuti nit mën na jàpp ni parce que tàmm ko parce que xam ko mën na réer ci interprétation te fekk yoo fi ngay dem fi ngay jublu moom moo gën ci askan bi président Diomaye Faye ak 100 jours ku koy wax fàttali dafa baax ci jaam fàttali dafa baax ci jullit 100 jours kenn du ko wax te fàttali ko lii am ñi yëkkati kàddu fi yëpp wax dañ ko d'abord lii njëkk am ñu ciy sante suñu borom mooy jikko jikko moo tax changement am jikko moo tax changement am jikko moo tax sunu borom jàppale ñu bu ñu gaawantu nañu mettre la lumière sur les valeurs yoo xam ne moo tax changement am et des valeurs portées par le président Ousmane Sonko président Pastef le président de la République muy Bassirou Diomaye fay et le pré le, les valeurs portées par vous responsables leaders et la jeunesse sénégalaise et les femmes sénégalaises ñoom ñoo incarné des valeurs yoo xam ni yan valeur la valeur loyauté valeur endurance valeur surtout générosité et mettre en mettant en avant le Sénégal et le pays léegi nag y a un grand défi par rapport à ces mêmes valeurs nous avons terrassé un taureau muy Macky Sall et son régime mais attendez Macky Sall kenn waratu ko tudd ce que nous devons dire nous avons peut-être terrassé un taureau le taureau d'un ancien système d'une autre façon de réfléchir d'autres rapport à la politique d'autres rapports à la nation, aux populations, d'autres rapports aux puissances étrangères, aux voisins, à la question de la sécurité xëy na loolu la ñu terrassé il ne faut pas se tromper ñu ñuy dugal ci jeu wu comparaison man la Amadou Ba la Amadou Ba et cetera c'est un petit jeu il faut absolument qu'on sorte de ça maintenant le défi et ce défi là premier cercle boo xam ni il se pose à ce niveau c'est le cercle de la coalition Diomaye damay faral di wax ni ñi may politikal ma ne ko su may noon ak ñi may sonnal du ñu nekk ci biti ñoom ils apprécient ce que je fais généralement mais ki may gën a sonnal mooy koo xam ne maag moo ma nekkoon ci benn oto maag moo ma nekkoon ci et cetera coono gi ak wax ji très souvent fa lay jóge donc après avoir terrassé lu rëy loolu mooy système bële yaakaar ñëw comme disait tout madame la PM un sénégalais bu kenn xamul jóge fële ci condition yoo xam ne extraordinaire très simple yàlla def en mettant en avant uniquement une somme ou un socle de valeur mu am un changement nañu continuer sur ce socle de valeur c'est pas l'argent du wax ju neex du yëfu politicien mais li tax ñu réussir c'est en mettant en avant des valeurs alors ban valeur a ci des léegi mooy ñett il me benn bi mooy il faut terrasser nos égos il faut terrasser nos égos damay faral di wax ni man nag léegi nga nekk nag man nag léegi nga nekk nag loo gis muy dem ngay xalaat tout le temps sa bopp dafa garaaw mi ngi ci man mi ci ñu bëri moo tax ngeen baal ma du nekk ma fi di xutbaat et cetera mais dafa am loo xam ne dama koy ram ne dama koy génne ci cadre boobu wax ko muy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin mooy am na foo xam ne nit il faut nga dem nga xaw a di fàtte di fatte sa bopp et puis yàlla moo joué jeu bi jeu bi moo koy rey wane na ko Bassirou Diomaye Faye c'était pas dans le calcul mu nekk ko mais dama ne il a été dans le calcul finalement par jikkoom constance loyauté combat toujours présent et naturellement yàlla ndekete mi ngi organisme ba mu nekk moom mais lu tax mu nekk moom en réalité ce qui le portait ce qui l'encadrait et ce qui faisait de lui sans qu'il ne s'en rende compte que moom la mooy jikko kon ego moo ñu yàq mooy nar a nekk le virus bu nar a dugg suñu diggante nga fàtte sa bopp fàtte ni yàlla am na fàtte l'histoire boo xam ne ci l'as vécu qui est récente qui de trois mois ki nga daan àndal ñu def ko dara yow defuñu la nga ne man nag su yàggee nga nekk nag muy égo bi ñaareel bi mooy profilage bi madame la présidente waxoon ngeen ko te am nañ ko baax na mais damay ñaan mu am beneen profilage profilage bi suñu coalition dafa war a moi j'en ai besoin au niveau du secteur de l'éducation dama soxla une coalition organisée aussi par secteur dama ko soxla mooy des gens qui s'organisent aussi pas pour eux parce que et cetera mais pour voir di di continuer di suivre ndax seen rêve seen gëm-gëm pour Sénégal est-ce que ñu ngi koy dérouler Et ils continuent de se mobiliser, de s'investir dans la coalition, au sein de la coalition, à travers des commissions pour la production. Et quand il veut rencontrer quelqu'un, quand il veut rencontrer le président Diomaye Faye, quand il veut rencontrer le président Ousmane Sonko, c'est parce que c'est pour dire, nous, au sein de la coalition, sur les questions agricoles, sur les questions industrielles, voilà notre position. Mu am un débat boo xam ni y a un apport c'est aussi changer lu mel noonu et je pense que dafay am solo ñu am benn positionnement boo xam ne noonu lay demee et le troisième point bi ma yaakaar ni war nañu aussi relever ce défi moom mooy wax dëgg yàlla euh, PM wax na ko xaw moom nag dafa dégg wolof trop euh, nee na xaw ma kasak ba waaw nañu nañu bàyyi njulliyee kasak ba wax dëgg yàlla noonu nous avons été les acteurs d'un changement profond quand je voyais tout la vidéo dama ne je ne voyais pas cette vidéo là pour tout de suite ma ne cette vidéo là elle magnifique pour dans vingt ans say sët ko xool te kenn ku nekk ci yéen su toogee ci biir famille am bi di dem di ne sa doom kaay ton petit-fils bis boobu ñun ñoo nekkoon QG nii la demee nga koy nettali avec fierté donc yàlla du la yëkkati. ba foofu nga mener un grand combat un très grand combat en mettant un en avant un idéal mu yàqu avec des politiciens yoo xam ne ñu lay tëg tënk ci affaire 100 jours ngay xataraay di xeex di et cetera et cetera non nous devons to think out of the box réfléchir donc en dehors de la boîte maa ngi jégalu bu baax a baax di sant bu baax yàlla ñu yàlla jàppale et président soxna ko soxla na ko le premier ministre soxla na ko et le gouvernement soxla nañ ko am na loo xam ne de très intime bi mu bëgg partager aussi ak yéen pour comprendre un peu et ceux qui sur la table ak ñi nekk fii mësa nekk dans un gouvernement wala mës a am yenn responsabilité xam naa xam nañu li may wax président Diomaye Faye li mu gën a soxla tey jii mooy ku koy ñemeloo daan naa wax ni nit mën na wéet ci mbooloo soo génnee ñëpp di la tàccu te fekk danga ragal ñëpp te dama ragal am na yenn wax ak yenn attitude yoo xam ne suñ koy am dañuy tiital sunu président tiital suñu premier ministre tiital suñu gouvernement parce que dañuy bëgg ñëw ragal a ñëw fii fii fii sax dañ fiy bëgg ñëw ragal a ñëw ndaxte suñu ñëwee c'est des problèmes personnels yoo xam ne xëy na moom la ñuy nekk di gérer mu jafe ci ñoom il préfère peut-être s'éclipser waxuma ne moom la ñu wax de man maay jot parce que quand ku nekk ci ñun am na responsabilité mais mu ñëwoon fii tey jii kon ne parle que de l'agriculture que des enfants que de l'université je pense que fii dootu fi jóge te mukk il se sentira en sécurité parce que balaa muy génn il recevra tellement d'informations tellement de suggestions tellement d'accompagnement en ce moment il sera en sécurité mu ci bàyyi maa ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu yi